bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laata ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï jërë jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV Naar Fall ma ngi leen di nuyu di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen ñu nuyu ñëpp di nuyu mbokk réew mi ak mbokk bitim réew waaye mbokk yi laataa ñuy tàmbali tey yaakaar naa lim leen indi lu neex lay doon waaye balaa ñu ciy dem dañuy nuyu suñu sponsor ku ci mel ni waa Green OK ñi nga xamante ni mbokk yi nee jaay engrais bu baax bi ña nga fan ña nga fële ca ñaay cokkeer di jaay engrais bu baax boo ko defee sa tool mu naat picc du la sonal gunóor du la ku bëgg a jokkoo ak ñoom da ngay def mbokk yi 77 182 99 80 di nga jot alpha mu wax la ni ngay utiliser sa engrais waaye kenn du waa Touba Kër Niang communication chez Mamor ña nga ca Colobane ak ca Tëngéej nee naa ñooy jaay téléphones yu baax yi te dëgër di jaay en di jaay demi gros en même temps di réparer téléphone di jaay lépp luy accessoire jëm ci téléphone ku bëgg a jokkoo ak ñoom mbokk yi nee naa da ngay def 78 433 80 70 78 433 80 70 mooy numéro tëngéej bi boo bëggee jokkoo moom mooy seen numéro ñoom waa Touba Kër Niang communication. waaye nee na leen saa su ne dañuy topp actualité sànq jëli nañ Pape Sarr bu Pikine mu wax ci combat Ama. en même temps mu wax ci digganteem ak nga xamante ni mbokk yi mooy góora Mbaxal ñu am loo xamante ni kàddu yoo xam ne nee na Gora wax na ko ko te tegu ko ci yoon mbokk yi nag yaakaar naa tungu ne du teew ñuy nataal moo tax tey ñoo jël si góora fas yéene waxtaan ak moom ci actualité waxtaan ak moom ci combat Ama Baldé ak Modou Lo derby la ak parcelle nee naa leen loolu du yomb waaye dañ koy jox mu nuyoo yoon dugg ak moom ci waxtaan bi Gora bi naa la siyaar. waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla di julli si Baye Laye Aliou wasalaam di ñaanal kilifa diine yi nga xam ñoo nekk si réew mi yàlla leen yàlla may jàmm yàlla bàyyi leen mu di tiijaan xaadir laayeen xam nga suñu mbokk chrétien yeeg ñëpp daal di wax Sénégal yàlla na fi jàmm xew naar ñu ngi leen dalal bu baax yéen waa Baol TV di nuyu sa caméraman bu baax waaw peace and love ñu dem ah. ayca góor yaakaar naa ni. li ñu fi indi moom yaakaar naa kenn du la ko laaj ndax seetaan nga vidéo bi nga xamante ni def nañ ko ak Pape Sarr Pape Sarr génn wax ay kàddu yoo xamante ni nee na da nga jël ay kàddu teg ko ci kawam yoo xamante ni waroo ko ko wax te sekkoo leen ko yéen ñaar est-ce que mën nañ xam ni mu demee. waaw Naar Fall maa ngi lay maa ngi rafetlu lii nga def quoi parce que olof Ndiaye nee na weddi tuuma du ragal seetal sa der la man julit laa ku ma xool xam ne du ma waxkatu lu ñaaw te du ma defkatu lu ñaaw dafa am lu jug muy Ama Balde ak Modou Lo ñu fay leen xaalis pour ñu war a bëre Balla gay Modou jaar na fi Eumeu Sène Modou Lo jaar na fi Ama balle bëri na fe ku ne Yékini Balla Gaye Ama Baldé am na fi tàkkusaan bu ne mhm. kon tàkkusaan bi warul warul egg fenn fi bu dee ñun ay nit lan ay personnes yu bien lan ay nit ñu nga xam ne dañuy wax ñu nuy déglu war nu wax lu ñaaw wala di taal lu ñaaw man duma ma wax katu lu ñaaw mhm. te lu ma wax j'assume bien mes responsabilités. Mhm. weddi tuuma du ragal Pape duma ko wax lu ñaaw duma ma ko saaga. Mhm. mais li mu wax ni da nga génn ci internet bi di ko wax ay kàddu yoo xam ni euh, du kàddu yu tegganu loolu lan lañ ci góoram. Pape Sarr li muy wax man su ma doon wax yeddaat sama bopp man du ma waxal nit lu ñaaw seetaan leen interview yëpp boo ñu si déggee wax ju ñaaw wala wax ju nuy tere Sénégal nit di ko wax ñu koy tere pour yóbbu ko si yoon su ma ko waxee rek nan na ko xool. Mhm. man taalibe Seydina Limaamu laa koroog li ma wax rek metti na ma trop te dewxuma ko mu ni ma man du ma taalibe Baay Laay sa wasila nit am wasilam nga taxaw interview ni ko doo doo kii mais ko ëppul mbokk mënoo ko jëw. mais yaakaar naa Pape Sarr sa grand la mun na am réeroo moo am seen diggante ya ñaar mais ay waxante yu ñaaw yaakaar naa amul seen diggante ya ñaar. man du ma wax lu ñaaw. moom li muy wax moom la concerné. man sama wax laay wax. yaa ngi may dégg. te j'assume bien mes responsables man aw ma fu may taxaw di wax nit lu ñaaw wala di arrière. mais kàddu yi mu wax nii yaa ko ko wax. est que est-ce que ko loolu moo ko wax moom. mais déggoo ko si man. dégg dégguma ko. déggoo ko si man. Mhm. kon waxam la. Mhm. combat bu ko ëppee doole na def nànk na ñaanal Ama bale jàmm. ñu ñaanal Modou loo jàmm. bu ndee ba ay kaso di si am kon jàmm amul. nan wax jàmm di dox jàmm man jàmm laay dox di sensible gis nga lii dafa ëpp. Mhm. Pape Sarr wax ji muy wax dafa ëpp trop. te kenn waxu si man su ma génnee wax am na lu metti am na lu ëpp. barki démb Ndiaye nga wax doomu jàmbur. fii la am nangam ak nangam yow kenn yóbbuwoogu la si yoon kenn waxu la yoon yow nga tëb tey si wax yi nga nang si yóbbu nit yoon ñun Sénégal la nekk xam nañ yoon xam nañ droit. mais Gora ba mu seetaanee interview Pape Sarr bi mu wax ay kàddu na booy bi su génnut wax wala ay mbokkam wax combat bi 100 laa koy seetaanee jàmm du am sama diggante man ak moom te aussi nee na plainte na la ba ba nga déggee lan la def. defuma dara wax dëgg yàlla jullit la parce que ñi ni plainte ak ñiy dem si yoon gënuñu leen dëkk bi dafa am yoon bu dee dafa gis lu ko metti bu ko neexee am na droit dem si yoon devoiram lay def man dawuma si benn yoon parce que aw ma kenn problème Pape Sarr aw ma moom problème am na lu ëpp tuuru. mais li mu wax ni ay vidéo yi ngay waxee ci moom lu ñaaw mu ngeeg moom est-ce que loolu euh, góor da koy dëggal wala. non non man du ma dëggal lu ñaaw. man du ma waxkatu lu ñaaw koo ma xoolee da nga xam ne du ma lu ñaaw mm-hmm. te aw maag benn problème waa Pikine mm-hmm. Pikine dama fa ay nit mm-hmm. Ama Baldé dafa am ay supporter sama biir kër ba sama biir koñ foofu ca barki Seydina Mohamed booyu yu ko bëgg bay dan si xaru billaahi wallaahi tallaahi boo yu bëgg Ama Baldé foofu te dérangé wu parce que nit ku ne yaay xool ku la neex nga bëgg ko man bëgg-bëggam sama bëgg-bëgg dama si bàyyi man Modou xarañ loo laa àndal parcelle laa àndal Cambérène citoyen laa sénégalais laa carte sénégalais laa yor ko ëppul mbokk mënoo ko jëw li mu yaakaar ne nag mooy am mu ngi nax boppam mais est-ce que amul tam malentendu seen diggante mu yaakaar ni wax ji ñaaw nga wax fekk mooy loolu non combat bi dama yaakaar ni dafa ëpp so doole Pape Sarr maa ngi gis interview yi waa Pique yi ñuy def di defar seen set setal di defar seen loolooy loolooy lamb lamb aar la lamb waa koñ bi dañ ko war a yëg Pikine neexal parcelle neexal mais sans violence Pape Sarr na dimbali ngir yàlla léegi Nicolas si combat bi mu tëgg moom mën na sauver làmb am na yenn comportement yi yenn wax day yàqa làmb ji li nga li muy def day yee violence yaakaar naa sax làmb sport la boo xam ne bu bu bu boolewul war sa tàgg xool Ama li mu wax koroog interview Modou Lo uh-huh. interview bu nice mu taxaw wax a jàkkaarloog Modou Lo lu nice uh-huh. ñu waxtaan ñoom ñaar ñoom ñaar dañ fay man kenn fayu ma uh-huh. lekkuma dërëmu Modou Lo lekkuma dërëmu Ama Baldé mais damaa bokk si làmb di dundal làmb man bëri naa nekk naa promoteur barki Seydina li yow mi billaahi wallaahi taalaahi bu baax mais yaakaar naa Sénégal moom euh, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Gora Mbaxal ak Pape ñoo far xëy na làmb ji moo àgg foo xamante ne ni ku ci nekk bëgg nga sa mbër am dam ku ci nekk bëgg nga sa mbër àgg fenn fi moo tax ku ci nekk loolu sa morom wax lu mu tuuti tuuti nga gis ci sa bopp mais yaakaar na Pape Sarr moom nit ku baax la amul problème góor tam aussi nit ku baax la amul problème ñuy ñaan rek euh, jàmm am seen diggante ndax yaakaar naa làmb am na yoo xamante ni jaru ko ci lamb sport la boo xam ne boolewul warta tàggale su ma sañoon nga wax ak Pape Sarr Pape wax ak yow ngeen nekkaat ci jàmm non non safaan amu fi mhm. man de dafuma safaan daw ma fen maa ngi fi toog maa ngi xaar lépp yaa ngi dégg am na <laughs> kilifa yu nekk fii si parcelle. audio yeeg kii yëpp yuy fuite mu ngi si man. ay audio barke alxuraan bi gars yi wax leen dence leen lii te bu leen ko génnee parce que lii defarul làmb day yàq làmb. nit ku baax du xool lu bon di ko génne. nit ku bëgg a defar du génne lu bon man lu luy yàqu du génne si man. man Ama bale suma gisoon muy rom fii dama koy jàpp ñaanal mu jàll si jàmm pour mën a bëreeg Modou loo am na yenn wax yi nit bu koy wax ay suuf bu laalee Modou Lo Modou Lo du dugg làmb loolu day yee fitna ay xeer ay nii pikin dëkk la du dunu ay nit ñu ñàkk solo wala ay nit lan ay responsable am na ay responsable lu tax ñu naan Pikine dañuy sànni xeer lu tax ñu ne waxuñu waa Parcelles loolu amul nit boo dëkkee si gox yow ba ngay defar mais du yenn wax yi mooy indi mhm. yenn wax yi mooy yàq man li ma wax wax wax waxuma waa parcelle dara te xam naa ne waa parcelle duñ def dara parce que ñoom li leen ñor mooy Modou bëre si jàmm lii ndam nag sunu borom a kay maye yàlla rek ko yor ndam fii kenn amul doole yàlla rek a am doole. te man xam naa ni incha allahu rabbi Modou Lo Ama bu yàlla dogalee mu jàmm am ndam li parcelle la fanaan. loolu nga gis fii mooy am. macha allah yaakaar naa lamb ju na jaar na fi. coow lii combat bi am jaaxal nañu bëri diggante Modou Lo ak Ama depuis 2019 ba tey coow topp leen. non no non dama leen yërëm. billahi dama yërëm Ama Balde sama frère la dama yërëm Modou sama frère la. 6 ans 5 ans nit toog ko ko yor su jàmbur. Ama Balde soutien de famille mooy yàlla may dimbali ko muy dimbali famem kooku xam nga entreprise la. ko war a dimbali sàmm ñun Sénégalais yi. Modou leen dimbali ñu bëri li yàggul. wax ju ñaaw jeeg def lu ñaaw yeeg yóbbu lu ñaaw jaru ko jeex. man sénégalais laa. Mhm. barki limaamu laay Pape Sarr ëpp ma ay mbokk. macha allah barki alxuraanu karim ëpp li nga foog du am ëppoo ma ay mbokk. yéen ñaara far sa grand la tey boo amoon message boo koy lancé moom Pape Sarr la. non Pape Sarr amul lu ma koy lu ma koy lancé. na nekk si combat ma nekk sama combat nee na talul combat man la man la tal man ngaa déglu. Mhm. boo seetloo sax sama biir kàddu maa ngi ko naan est-ce que booy bi bugg laa déstabiliser pour génne la ci combat bi sa xel mun cee génn ndax Pape Sarr dafa nekk élément boo xamante ni ci Ama. bu bu manqué ama rek euh, dina am lu def ci ama ma ne ko est ce que nekkut daf la bëgg a pour génne la. non coow làmba la rek làmba gi ñoo ànd biru yi nii mais war na man mën na bañ àgg fenn ah. man duma ko déstabiliser parce que kilifa la responsable la fu mu doon man responsable la parce que tey bu làmba jeexee ma wax lu ñaaw suba damay rus. télé dafa garaaw internet dafa garaaw day dem à vie man dama yor a njaboot. Mhm. du ma wax nit lu ñaaw. du ma ko déstabiliser làmba la. Ama Balde mu ngi si ay yëfam Modou mu ngi si ay yëfam Pape Sarr wax na waa parcelle lu ne waa parcelle lu nuy wax bëgg a daal dama naan bàyyi leen jàmb wala bu leen def lii parce que lii du defar làmb ji di gërëm nag ñëpp Papa Sow Papa maa ngi koy gërëm bu baax jàmbaar. mais ba nga ba gars yi seetaanee li nga xamante ni mooy interview Pape Sarr bi jot nga ay appel ay nit yuy wax ak yow wala. non jot naa appel bu ne ah wax dëgg yàlla franchement jot naa appel bu ne. expliquer nangam nangam bul génn bul wax mais damay génn parce que weddi tuuma du ragal setal sa der la te des na yeneen génn. non si làmb ji dañ koy jaay. dañ koy jaay si jaay bu rafet ñun lii xoxatul non lii lii nu sax defuñu telluñu fii sax ñun ay jullit lan mhm. ay jullit lan quoi man man man ku man Pikine dama fa am ay soppe am fa ay nit yu fa dëkk barke alxuraanu karim liggéeye fa ba ma déggee sa tur gisaguma la xamagoo maa ngi naan góor ban façon nit la mais ba ma la gisee jàkkaarloog yow laa ne ah kii kat. nit ku baax la non non ñun ay nit ay jullit lan jullit danga nga war a baax di wax lu baax. mais jullit du tàqale. bu di wax lu ñaaw. bu demee ba naan waa Cambérène koro bi mu taxawee tirbinal dan ñëw fekk si ko. kon ñun ay ñun waa Cambérène ay jullit lan lu baax lan xam. am déet ñun ñun wax lu ñaaw. yaa ngi dégg. li ñu euh, war a def. buñ ko defoon affaire du àgg fii mais ku wax dama lay dalal ku wax dama naan dal leen Ama mooy bëre Modou Lo mooy bëre kon na rafet affaire dafa war a rafet jaar yoon. mais déggante ngeen ak Papa Sow ba coow ku baax la Papa Sow xaritu sawaay la mu ngi may wax ay wax. bul génn bul nii nit ku baax nga kenn xamewu la lii nangam ak Mansour jàmbaar Wrestling ñu ngi koy gërëm ngéntam li mu passé yàlla na ko yàlla taxaw di gërëm Modou loo demoon nga ngénte Mansour. non kooku sunu kooku kooku kooku kooku kenn la. parcelle sax nee na ca ngénte nga doon waxee say wax. ci loolu la. ci ngénte Mansour. waaw bàyyi ma waaye nga ma ngénte Mansour Ba bi. xam nga ñun ñu ngi rafetlu lépp. ñu ngi rafetlu lépp di gërëm waa parcelle. gërëm waa Cambérène lamba ji ni ko doon waaj ñu ngi koy waaj. tey la waa waaw fu ngeen ci toll. pare nan pare nan. billahi wallahi tallahi Modou Lo pare na pour jàkkaarloog Ama yàlla na jàmm am. supporter dal rek que le meilleur gagne te muy Modou Lo incha allahu rabbi. mais ak billets yu cher yi day dara gars day nante gars day am kat. lamba ji moo toll foofu rek. Pikine da ngeen bu ngeen yéexee du ngeen am fu ngeen. non dañuy wax rek waa Pikine dañuy naxe rek dañuy nax rek. macha allah lan ngay wax supporteru Modou Lo yeeg yu Ama Baldé yi. waaw damay ñaan jàmm di wax ñëpp nañ dal ci jàmm parce que lamba la lamb bu ne am na fi Ama yàlla na ko yàlla may jàmm xam nga ak rakam yi muy àndal yëpp parce que mu bon bon bon ay mbër lan te lii liggéey la mbër liggéey la kon parcelle nag am naa xel bu dal si ñoom parce que xamee nu leen violence xamee nu leen yàq làmb xamee nu leen lu ñaaw ñun dan bañ ba naan ay français la mais nit boo ko xamul rek bu ko jugeel ñun jàmm la ñuy woote. fan sa club Modou Lo xam nga sans frontière ñëpp parcelle 1 ba 26 Cambérène Ngor Wakaam Yoff tànk boo déggee tànk lébu yi ñoo naan tànk Ngor Wakaam Yoff fukk penc ak ñaar yi yëpp ñu ngi leen di woo si combat Modou bi xam nga. Uh-huh. ñu ñu dem si jekk ñëw si jekk dugg si bismillah génne si alhamdulilahi rabil alamin di rafetlu interview Baol TV ñu ngi leen di daal ñu ngi leen di gërëm gërëm nag ñëpp di woote xam nga maa ngi leen di gërëm di gërëm Xaadim Diagne borom ANC Xaadim mu ngi dëkk ba Pikine ñoom waa Pikine xam na Xaadim hmm. révélation la ku ma bëgg la jox ma jër nit nit ku baax ñëw fii dëgg fi parcelle xam nga hmm. kuy nit ku baax Pikine la jugee yaayam fii la dëkk mais day dox diggante Pikine ak Géejawaay Cambérène lu rafet kon yàlla na yàlla def jàmm man Pikine dama fa am ay soppe am fa ay nit benn la mhm. di woo ñëpp si jàmm nag xam nga yow yaa ma gën a xam di leen wax ni rek ñuy xaaraat beneen sortie yi xam nga ñu ngi si biir ah yàlla na jàmm yàgg fis di leen gërëm ah. kenn du yéen jaajëf bégee ayca gars yi gis ngeen nee na leen saa su ne dañ leen ñu toppal actualité mais yaakaar naa nag Sénégal benn bopp la kenn mën koo xar ñaar Pikine Parcelles benn la yaakaar naa lamb war a leen mën a tàkkale day jàll lamb bu ne jaar na gis nañ fi Yékini Balla Gaye gis nañ fi Modou Lo Balla Gaye combat bu ne jaar na fi kon combat bi war ñu mën a jaaxal nan koy def ci fair play supporteru Ama Baldé xam ni ñëw ak dal ak tey supporter seen mbër yu Modou itam def noonu ah? les ultras de Guédiawaye maa ngi leen di gërëm ah. ñoom ay dalan ak ultra Pikine yi uh-huh. euh, ki jiite ultra Pikine damay fàtt turam chaque jour sax mu euh, comment dire nu mu tuddati sax président ultra bi damay faat turam. président il sera bu Pikine bu Pikine xam nga barki Demba Ndiaye doon def kii ñu ngi koy gërëm ñoom góorandoo ñëpp. xam nga di gërëm ultra géejuwaay bu baax di leen ñaanal parce que xam nga ñun Lat Diop mooy suñu soppe ñun Lat Diop la ñu yàlla booleel. di ko gërëm waaw ministre. boo gisee fii lu ñu fi ñëw sax moom la. Uh-huh. xam nga ministre des sports. Uh-huh. li mu li ñu na ko yan bi yàlla na ko yan bi jik Euh, ministre des sports yàlla na ko yan bi jëkk monsieur Lat Diop sama papa sama kilifa sama lépp maa ngi lay ñaanal xam nga Tafa Seck laa doon wax léeg euh, président ultra yi mhm. xam nga kor rek am na mas ñun ak ñoom mas bu neex diggante Pikine géej waaye jàmmaa fi xeej yàlla na jàmm yàgg man Pikine dama fay bokk du nit moo ma fay jëlee mhm. du wax moo ma fay jëlee du menace du dara moo ma fay jëlee dama fay bokk di ñaan jàmm xam nga Lat mujje di ko gërëm bu baax ak les ultras de Guédiawaye peace and love nekk leen si jàmma ayca foofu nga daanelee fa la ñuy tàmbalee di gërëm bu baax Lat Diop le nouveau ministre des sports muy sunu fierté ñun waa Guédiawaye nga xamante ni Guédiawaye la ñu yeewoo fi mooy sunu lépp ñu ko ciy félicité bu baax a baax di ko ñaanal yéen bi yàlla ci kawam lépp li nga xamante ni Macky président Macky Sall yaakaar na ko ci moom ba jox ko ko yàlla na ko matal ba def loo xamante ni lu kawe njortam la di bëgge bu baax képp kuy autorité nekk biir Guédiawaye rawatina Omar Sané directeur ñu ngi koy nuyu bu baax moom it gis nañ liggéeyam ci géejawaay mu ngi koy doxal di ko teg ci yoon di wax rek euh, président Macky Sall Omar Sané jàmbaar la mi ngi béer géejawaay di leen jox dig daje beneen yoon di gërëm sama ba du fay Faye borom Gunaas jaajëf dig daje beneen yoon jaa ngeen jëf. Eh,